c'est M. Adam Tchandoum, euh, professeur dans ce DCM de Chiki, qui se trouve dans la commune de Dias. Donc, nous euh, union pour euh, inauguration de deux salles de classe avec un bloc administratif, plus des toilettes pour les élèves, garçons et filles. Nous avons dans le cadre de la de leur politique euh, ci RSE e, ont pensé à améliorer les conditions de travail euh, de notre établissement impact bi am ci euh, impact bi joyeux bi Dangote indi tay am ci nu école bi moy que ne dina améliorer suñu conditions de travail et qui dit amélioration de conditions de travail pense forcément à booster les résultats de l'école parce que nous avons ci moment dañ ko vu conditions que nous avons euh, par rapport aux effectifs pléthoriques yi ñu dans ci salle de classe manque de salle de classe qui nous a qui nous a poussé même à réduire certaines heures dans certaines disciplines pour permettre à d'autres salles pédagogiques de tourner dans les classes que nga avons donc euh, yaakaar ne dina gëna améliorer faire évoluer résultats yi nga xamantene bien vrai que c'est des résultats tellement appréciés par la population mais dina gëna tax aussi résultats yoyu ñu gis ci évolution mu gëna jëm kaw. amna ay jamono ci ki dañu daan dem jass euh, di denkaane seen xale fofu ñuy jàng wala ñu leen di yobbu sax mbuur ñuy jàngi fofu té bo denkaanee sa xalé neexul tamit ka koy dénk fa koy dénk tamit do xam. ak transport bi aussi dafa doon joué ci réussite taux réussite élèves yi mais gis nañ ne bu ci ki amee CM ba léegi à chaque fois euh, ñu ngi yokk classe yi donc amatul benn dénkaane boo xam ne ñu ngi koy def ci yeneen dëkk yi loolu aussi dafa dafa joué depuis daaw jéeg dafa joué aussi ci taux réussite yi élèves yi donc gis nañ ne euh, taux de réussite bi dafa yokk

Euh, bu ko mairie doon def dina metti ci budget parce que xam nañ ne budget mairie yi taxul mu am doole noonu parce que ñi war a contribuer souvent du ñu contribuer financièrement donc mun naa wax ne dango vraiment euh, daf ñu daf ñu daf ñu soulager lu bëri bëri ci domaine yëpp. tey li ñu fi dajale woon mooy euh, dañu doon inaugurer salle de classe suñu tabaxal collège bu nekk ci commune de Diass ñu leen defalee salle de classe yi tamit boole nañ ci bloc administratif ak. toilette yoo xamante ne gans góor yi ak jigéen yi ku ci nekk am nga sa toilette bopp ñu boole si tamit ay table banc ok yoo xamante ne jox nañ ko commune bi n'est-ce nga xamante ne day nekk salle boo xamante ne day équiper nga xamante ne ubbi tey jàng tey ku ñëw fii si jas si collège bi nañ ko mën a def ndaxte lépp yemb na